أحد صل ولتسلم سرمدك على الذي سميته محمدك أحد صل ولتسلم سرمدك على الذي سميته محمدك نافع صل ولتسلم سرمدك على القليل والحبيب أحمدك نافع صل ولتسلم كل حين على نبيك رئيس الصالحين أحد تصلي ولتسلم في أبد على رسولك سراج من أبد لطيف صلي أبدا وسلما على قليلك مراد العلماء لطيف صلي أبدا مع سلام على سراجك الذي جل الظلام اكتب له في آله وصحبه xayra salaamay wa waddih lahbi habli rasulillahi salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk taalibe yi nga xam ne ñoo fi ñoo fi teew di jiital ci ziar bi nag sëriñ Muntaxa Mbàkke moom mi nga xam ne moo fi nekkal sëriñ Touba nekk sëriñ Touba yi di ziar sëriñ Cheikh Jëmm Fall moom mi nga xam ne moo fi Cheikh Ibrahima Fall di leen ñaanal ñaag fi loolu tànn ak di ziar sëriñ Abul Baraka moom mi nga xam ne moo fi Cheikh Mouhamed Fall ko ñaanal moom itam mu yàgg si loolu te ànd ak waaw xam naa tey nag ci bis bii ñu ñu daje eh, li ñu fi daje mooy dañoo nekk ci dëkk bi di Mbacke Bari Mbacke Bari nag ku nekk xam na li nga xam ne moo ñu fi dajale ñun muy sabab bi mooy daanaka bu ñuy wax ci yoonu murit ci sëriñ bi génn gi mu génnoon Eh, jàmmaarloog noonu lislaam yi fii nii ci Mbàkke Baari fii fii la déparé woon muy histoire boo xam ne daanaka eh, lu bare bari ci borom xam-xam yi ñu ngi koy ñu koy ñu waxtaane ñu ñëwoon fi ñu ñun nag ñu ñu féete fi nekk nekk fekk eh, Serigne Cheikh Jooleel moom mi nga xam ne baax moom mi nga xam ne moo fi nekkal sëriñ Cheikh Thioro moom maam Cheikh maam Cheikh Absa nga xam ne waaw moom tey ñu ko ci yàq waaw dinañu dinañ ko moom te waaw waaw kay ñuy siyaar bu baax sëriñ Cheikh Jorel mi nga xam ne moo fi nekkal Serigne Cheikh Thioro moom moom si xab Absa ñun nag daanaka bis bii ñu nekk moom moom rek lañ ci lañ ciy gunge waaw mooy mooy dëkk bi moom la Serigne Touba dogal Mbacke Bari ne ci loxo ñu nit ñuy njaboot Serigne Touba te lépp loo xam ne fu Serigne Touba teg tànkam na ñun njaboot bi yëpp àndandoo euh, bokk ko ngir di ci taxawu ci mboolem loo xam ne ni moo ci war ñu ñëw fii nag àndandoo moom ci màggal gi nga xam ne moom la ñuy def at mu jot le 10 août bi nga xam ne fii la fi bi jugee woon dem ci dem ci géej kàddu yi nag daanaka du jëm ci lu dul sant sëñ Cheikh Jorel mi nga xam ne moo fi nekk di ko ñaanal suñ borom gën koo defal tawfeex te gën ko fee yàggal te bis bii ñu yàgg ko yàgg koo def ay at yu baree baree baree bëri nag xam naa jamono ni tëddee tawat yi nga xam ne moom la ñuy wax moo am ci jamono ji moo tax màggalu ren gi daanaka gis nga ci niñ ko defee rek mooy eh, jàngar alxuraan rek jàng xasida ñaan suñ borom mu def tawféex ci ci dëkk bi te loolu sax li tax ñu ñu defee ko noonu mooy ñaan moom daa mënut a ñàkk ci bépp xam ne suñ borom wàcc wàcc na ko moo tax daanaka fii sax ci ci kër gi ñu nekk jàng nañ fi daanaka lu toll ci fukki kaamil ci bi nu xëyee jàng fi tamit ay limu xasida yu baree bari bokkut ak nag li nga xam ne jàng nañ ko ci yeneen kër yi ñaan ñaan ñaan ñaan ko suñ borom def tawféex ci ci réew mi waaw li nga xam ne nag moom la ñuy wax ngir ñun suñ mbokku taalibe yëpp mooy ñu gën a fonkaat sëriñ bi gën a fonk kàddu sëriñ bi te sunu lépp ñu jël ko dëgmal ko ci sëñ Muntaxa mi nga xam ne moo fi sëriñ Tuubaa lépp lu mu wax ñu nekk ci lu mu ñu wattandiku loo ñu ñu ñu wàttandiku ko loolu moo nu mën a may tawféex àdduna mën a mën ñoo may tawfeex alaxira waaye ci lépp luñ tënk lu wuteeg moom ay bëgg-bëggam du ñu jëmale fenn foo xam ne nii fuy gën ci ñun la kon ñu gën a tënkuwaat sëriñ ci ay bëgg-bëggam gën yar gën a ak i dal te sax ci ak njub te toppi bëgg-bëgg sëriñ bi suñu kéem kattan asalaamaaleykum wa tarda wa taqbal minni ya sukuru sukuri hadak yàlla salli abadan wa sallima لي كل ما سيدنا محمد والآل وذابي بالغالي والمال والتكمني بجاهر الرذائل قبل انتهاء قل لي الفضائل